waye suba bu tu gal ci gal gi parce que yakar amatu fa dama le président délégué bi mu démé Mbour barki xam président da ngay am bi am am taxaway bi mais da ngay président bi tu as l'impression

sab le 12. le douze nga ñëw waxtu jëf jot nga le la ba ndax yow kilifa nga ah, signature man